bi ci njëkk mooy euh, du ma ko tuddee manifestation parce que manifestation mooy taxaw ñaxtu ñaxtu ci kàddu ñaxtu ci ka euh, ñaxtu ci bind waneen sa naqar waaye doo yàq doo tiitalaate doo doo doo xoqalaate doo rey bakkan parce que manifestation moom ci réew république ak ci démocratie loolu bokku ci léegi nag ñeent yooyu ma wax ca nga wax ko te ñun ñëpp ñu dund ko mooy ay bakkan rot ci ñu yàq ci alalu jàmburu ñu tiital ci xoqatal ci ay nit taal ci ay këru jàmburu loolu bu amee beneen façon tour la ñuy ut bu dul manifestation loolu bu amee say saytu ko mooy li am li am ba am da nga ni premier ak lan le deux commencé wul le premier le 29 ak le 28 lañ njëkk a attaqué République du Sénégal attaque cyber yéen ñëpp ngeen gis ko les site stratégiques du gouvernement et de la République ont été attaqués li may wax nii lu am la ñu teg ci ñaari fan ay nit génn suscité ay manifestation ni ñoom dañuy ñaxtu ci biir ñaxtu yooyu ay toj commencé cee am ay bakkan commencé cee rot ci biir ñaxtu yooyu ñu songu kër yi nga xam ni ñoo yor li nga xam ni réew mi mënu koo ñàkk muy kër yi séddale ndox kër yi séddale courant kër yi nga xam ni ñooy assurer transport public bi loolu bu amee ñeenti attaque yooyu bu amee mënatoo wax manifestation ça on a attaqué la République du Sénégal on a attaqué la nation la nation sénégalaise réew mi ci xolam lañu ñu song parce que kii yàq jumtukaayu ndox yi bëggul ñu naan wala bëgg na bokk ñu toog ay weer wala ay at duñ naan kiy attaqué kër yi lijjanti mbiru courant bi kooku bëgg nañu toog ay at nekkaat ci lëndëm kiy attaqué li nga xam ni mooy yombal dem ak dikk bi kooku mu ngi fexe pour que nit dootul mën a jóge ci ci barab dem ci beneen barab loolu ñett yooyu yëpp boo ko boolee ak attaque cyber bi dañuy gis ni que suñu économie la ñu attaqué suñu koom-koomu réew la ñu attaqué suñu doxalinu réew la ñu attaqué ba pare boole ci di attaqué institution yëpp ci leen jéem a décrédibiliser loolu mënatul tudd ay manifestation ba mais mais loolu bu dul man mooy kay li ma la wax. ban ban mais mooy tu non du man maa koy qualifié ñu man dund naa ko yow dund nga ko. kii dund na ko keneen dund na ko sénégalais yi ñuy seetaan yëpp dundu nañ ko nee naa la askanu Sénégal lañu ñu attaqué république du Sénégal la ñu attaqué donc on a attaqué la nation sénégalaise c'est pas de manifestation bu leen juum. ci wàllu attaque boobu état bi. xam nga nag tamit laaj dafay méngoo ak li ñuy dund yow mënuma la wax attaque nañ infrastructure yi ni la attaqué nañ réseau. hydraulique bi pour ñu naan ni la attaqué nañ réseau électrique bi ni la attaqué nañ ñu cyber attaqué transport bi nga may wax ay nervi ay bakkan wadd non xaa déedéet déedéet loolu lépp danga ko jël gis nga mhm. il faut que ñu ñi delloo si seen xel mhm. ñuy wax en responsable di wax ca yàlla tax di wax ca réew mi tax mhm. lii fi am amul benn sénégalais bu ko bëgg a dundaat li ëpp ci ñun ku ci nekk da ngaa tëju sa kër uuf sa njaboot say doom mënuñoo jàngi boutique yi doon jaay commerce ñëpp tëj parce que am na yuñ ci daj li may wax nii du ay gént donc bu réew mi tolloo foofu nga ñëw naan ma politique bi diviser non. non waxuma waxi politique dama nga ñëw naan ma opposition bi niñ ko niñ ko défendre suñu ay institutions. déedéet ñu gis ci ay images yu factuelles. Hmm. ñoo xam ni bokkuñu ci takk der yi. génnee ay armes jëmale ko ci population bi ndegam noonu lañ ko waroon défendre. déedéet laaj bi déedéet loolu balaa nga koy wax da ngay xool boo ni ma woon attaque yooyu mm-hmm. lan moo ko fay ak lan mooy saafara si ak lan mooy mbébét bi loolu doon nañ ci mën a wax mm-hmm. mais bëgg a jël li ñu wax nii yëpp nga tënk ko ci benn wax defe naa mooy ñàkk comprendre réalité bi ñàkk comprendre sincérité. ak ak ak véracité attaque bi réew mi am. lan mooy bi au mais véracité bi mooy dañ ki ñi ñi lii dañu bëggoon réew mi naax saay ñi sumbu lii dañu bëggoon koom-koom bi taxaw ñi sumbu lii dañu bëggoon Sénégal tasaaroo est-ce que nii ñu dunde ñaari fan yi mënoon nañ ko continuer dunde léegi ni ci nguur gi taxawee ba loolu arrêté boo ma waxee mën nañ ci wax mm-hmm. beneen incompréhension boo ci am ci biir boo bëggee mën nañ ko wax mais mënuñuy taal butiku jàmburu mënuñuy taal terre bi ñuy transporter attaquer site infrastructure doo yi attaquer infrastructure d'électricité yi attaquer même suñu li liy wane suñu xar kanu kanamu réew ci biti mhm. après nga bëgg ma wax naan ma noo gis nañ fi ay groupe boo ma la bu ñu eggee ci wax jooju mën nga ma laaj ma expliquer la man li ci nguur gi def ak nan lañ ko doxalee ak nan la ko force de sécurité de défense yi parce que du man maa njëkk a wax man bi ma waxee ba pare ni leen réew mi tey am na lu nekk ci biti attaqué nañ ñu ci biti attaqué nañ ñu ci biir am na ay nit yu yor ngànnaay yuy dugg ci biir manifestation yi di rey ay nit pour bëgguñu ni état du Sénégal la pour yàq suñu der ci biti du guleet mu fi am ay manifestation jiitu woon na fi ñu wax ay nit ñu dee ñun ñëpp ñu gis yéen ngeen def ay reportage ci kër yooyu ngeen gis ci ay borom kër yoo xam ni nee nañ ay politiciens ñëw nañ seet leen pour ñu jiiñ ko homme politique yi ñu ni ñoom seen doom paaka moo ko rey ñii ni jaas yi moo ko rey ñii ni bal moo ko rey jàngat bi mooy loolu nan la mën a nekkee avant bërki démb manifestation am na fi nit ñi dañuy dajaloo place de l'Obélisque dajaloo ba wax bu tàkkee ba tàkk lacrymogène la ñuy dóor nit ñi tas ku nekk dem ñibbi mais mouvement de foule coordonné synchronisé avec ces quatre actions ngeen bëgg ko banaliser naan non ay présence nervi bi. banaliser banaliser du banaliser mm. parce que dundoon nañu ko mars 2021 mm-hmm. ñu ne dañu leen a bett. kon mm-hmm. mën a parce que bii bii moo gën a garaaw dafa waxoon sax njiitu dafa waxoon dootul amati la waxoon. non xam nga xam nga li amoon mars 2021 ak bii nii wax dëgg yàlla du benn mm. wute na bi ci ñaari fan jumtukaay yi génn nañ. doxalin bi bar na eh, yëf yi arrêté na loolu mooy dëgg léegi bu fekkee da nga bëgg ñu dellu si ci ndax dañ ñoo bett wala bettuñu mën nañ ci waxtaan ci kaaraange réew mi liñ ciy wax mooy li ci njëkk mooy da ngeen di xool li wër réew mi ñi ñu dendal amu ci ñeenti dëkk am na ci ñeenti dëkk yoo xam ni tey am nañ ay problème de sécurité mu doon loo xam ni mën naa ci bañ a wax pour des raisons diplomatiques mais mu doon lu sénégalais yëpp xam amu ci kenn ci ñun à ñenn fii ci Sénégal ñoo xam ni ñoom dañuy taxaw ni woy lii am na dëkk bee foofu magistrat yi dañuy syndiqué police bi dañuy syndiqué gisoo am na dëkk bi am na dëkk bi am na dëkk bi ñun ñi dëkk yooyu mel bëgguñu ñu am bëgguñu dunde noonu loolu mooy benn beneen bi ci topp ñu bari nee nañ kaaraange réew mi li ñu ci def ci alal dafa bari mënuñu wax ni que man du ma ni gouvernement bi def na lépp ba mat mais wax dëgg yàlla am na jumtukaay yuñ ci def ba bërki démb bato buy jar cent milliards lañuy ñuy ministre des forces armées dem di réceptionné donc problème kaaraange yi am yépp jéem nañ ci anticiper ca def nañ ci ay jéego xam nga Sénégal amagul piraat ci géej gi parce que réalité boobu amagul mais ñu ñëpp xam nañ ni que mi ngi waaj a am nga dem commander ñetti frégate lance missile pour protéger axe bi kooku yaa ngi jël ay jumtukaay ci défilé yi militaire kaaraange kenn du wax lépp parce que kenn du ku defee ni que ci réseau sociaux yi la ñuy waxee suñuy procédure de sécurité ak lool mooy yaa ngi nax sa bopp mais di nga wax lu dalal xel xelu nit ñi te di nga wax lu euh, mën a dalal xelu askan bi mais dinga wax tamit ni que jël nañ matukaay yi pour taxaw ci liy wax ci mooy yëf yi ci ay activité politique bu benn kuréel am lu doone man duma ni li am lépp ñoom la amuñu kàttan boobu li ñu def ñoom mooy ubbi bunt bi yeneen mbir yu taxawoon ci buntu réew mi toog di xaar position Sénégal ak doxalinu Sénégal ci wàllu politique étrangère ak dox ak nekkinu Sénégal ci àdduna bi ak pétrole ak gaz bi feeñ ci Sénégal dafa indi xaw ma nan lañ ko mën a tekkee ci wolof convoitise ci yeneen dëkk ak ci yeneen force am na ñu bëggoon bokk ci ñuy exploiter pétrole bi bokkuñu ci am na ñu bëggoon a bokk ci ñuy exploiter gaz bi bokkuñu ci am na ñu d'accordul ci ni réew mi doxalee ci loolu ñooñu dañoo génn taxaw toog am na ñu ñu jàppanteel li am Mali dañu jàpp ni que ñun waruñu am na ñu jàpp ni que ñun suñuy militaire wala ñu woon yóbbu Mali pour ñuy xeex terrorisme foofu am na ñu jàpp ni que ci suuf Sénégal position bi mu jël arrangé wu leen mais ñooñu ay nit lañ te ñun ñëpp xam nañ ni ko ñooñu ay nit yu yor ngànnaay la donc ñooñu jéem nañ jéem sottiwul jarul ñuy nëbbante ñu ñëpp xam nañ ni que Casamance 41 ans de rébellion moo fa am 41 ans de rébellion nit ñi dafa dóorante ay armes ay sénégalais di dee bu yàggul dara gis ngeen ni que ay pàcc pàcc yu bari la léegi am na ci pàcc yoo xam ni nangu nañ signé weer seen ngànnaay mais yéen ñii seen bopp ñi nanguwut a seen ngànnaay yéen yéen a bind ni que pàcc bi nee na du wéer ngànnaayam léegi boo dajalee ñooñu ñëpp ni leen kaa leen dem Sénégal bis bii nii lii dina fi am kaa leen dugg mais buñ duggee ànduñoo ak Massamba ànduñoo ak ki leen ubbil ànduñoo ak keneen ñooñu dañu ñëw pour tas réew mi. mais dans tout ça. et l' a fait face. faire faire face ouais est-ce que c'est pas février aussi parce que euh, li nga xamante ne moom moo xew si réew mi ñu gis ne ay bakkan mi ngi root mhm. ñu dénk suñu réew le président de la république Macky Sall euh, constant bi dafa dafa dem ba ni bu dara xewee ci dëkk bi day mel ne moom mutisme mooy mooy armam ndem noppi googu muy noppi di dina dalal xelu ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi ndem bi mu tàngee rek warul génn wax ni mbir mi nii la demee nii lañ ciy taxawee ah moom dañ dañ koo fal pour muy wax wala dañ koo far pour muy jëf mais ñi nga ñi nga jiite bu ah, leen waxul li ngay def defal ndànk déedéet mën naa ay waxi kese yorulum réew. waaw mais dafal ndànk déedéet ay waxi mm-hmm. kese. Mm-hmm. dalalum réew. Mm-hmm. ay waxi kese jiitewul am réew. waa xaaral rek waaw mais boo ma dégluwul nan ngay dégg li may wax. du yow nee nga ma noppeem nga wax. nga ni dafa waroon a wax maa ngi lay tontu. réew am na fu muy toll ay jëf ñoo koy lijjanti. say force de maintien de l'ordre mënuñu leen signaler manifestation fii ñu dem ñu wax composition yi force yi force de maintien de l'ordre buy dem commandant d'unité yi ñooy ar yor arme ñeneen ñi matraque la ñu yor bouclier ak grenade lacrymogène bi coow li commencé loolu moo njëkk a am force yooyu dem intervenir gis ni que ci biir force ci ñi ñuy jaamaar lool am na ñu ci yor ay ngànnaay vidéo yooyu du man maa ko filmer wan am na yu ma leen ci wan point de presse bi ma def bee passé am na yu ma leen ci wan buñ paree léegi du man maa ko filmer du yéen yéen a ko filmer ay sénégalais yu nekk ci biir masse bi ñoo ko filmer police constaté ko police bu ko constaté day réorganiser maintien de l'ordre bi muy def en fonction de la foule bi muy am parce que GMI bi préparé wuñ ko tàggatuñ ko jàngaluñ ko ci muy dóor ay balu fital loolu moo tax ngay gis yenn image ñu naan la wéy jeunes yi reculer nañ ak bougé nañ avancé nañ xale yi topp nañ leen mais policier bi bu seetloo ni que ci biir foule bi am na ku yor pistolet wala ku yor jaasi di def naka su dul noonu da koy remonter commandement mooy jël beneen décision fii ñaari brigade ci liñ mën a wax ëpp na ñaari brigade mais ci liñ mën a wax ci li ñëpp xam jargon bi ñëpp xam ci ëpp mu ëpp lool mooy GIGN ak BIP ñooñu la ñu tàggat pour ñu mën a jaamaarloo ak ñu yor fital am déet léegi ñooñu ñooñu la ñuy def appel ñooñu nag seen doxalin ak doxalinu GMI yi du doon benn mais en tout cas dinañ fexe ba GMI yi ni nekk ak ñoom ak ñoom ñiy intervenir ñu mën a xàmmante mën a déggoo mën a def. ñoom ñoo woon kon di mais. mais police civile kay yàgg na am bip heure boo ko gisee bip à part bi ñuy sol ak oto bi ñuy dawal yéen ñëpp gis ngeen. mais mais kon policiers dañoo dañoo ci question plus plus ñu mhm. wane ne nervi yi ñuy wax nii en réalité dañuy liggéey ak euh, France 24 dañuy liggéey ak ñi nga xam ne mooy gendarmerie wala police mhm. ba ñëpp di ko partage si réseaux sociaux yi loolu est-ce que amul lu mu gàkk-gàkkal mais amul gàkk-gàkkal réew mu ñu song képp kuy citoyen déjà benn ca bëgg réew mi taxawal réew mi da ngay jóg bokk loolu mooy benn ñi ngeen di tudde nervi mais umpul kenn ni am na ñu doon wax ni que kaay lañ dem taali kër Mambay ñooñu ñu ñuy jël pour ñuy ñëw taal sama kër ay lan lañ ñu dem taali kër Matar ba ay ñal la ay lan lañ ñu dem taal yeneen kër yi ay lan lañ ñooñu ay manifestant lañ. nervi au même titre que. waaw euh, ba déedéet defal ndànk. mais mais waxu amul amul civil buy liggéey ak policier. waaw mais 2000 le chef de la police dans sa communication dafa juum la non non defal ndànk defal ndànk. ni ngay defee ndànk mooy yow sa bopp amoo droit wax police. ndax lan mais amoo droit wax ni que chefu police dafa juum parce que chefu police da nga teglum dama lay expliquer jàngaluma la sa métier mais dama lay wax kaaraange ki ko yor dafa am lu mu mën a wax fu mu mën a yem ci diir bi ak fu mu mën a yem suba du communicant comme man ak yow man damay communiquer parce que sama expérience la damay communiquer jànguma ko mais peut yàgg bu ma ci yàgg moo tax xëy na mu mën a communiquer yow da ngay communiquer nga parce que loolu nga jàng loolu laa foog bokk mm-hmm. moom maintien de l'ordre ak enquête policière ak traque d'un malfrat la jàng mm-hmm. jour boo ko indee teg ko muy wax li muy wax mën nga ko bañ a déggee comme moom li mu waxul mm-hmm. amul benn dëkk bu respectable booy wax démocratie ba tax yaakaar ne que police États-Unis police du wax citoyen di wax France bi ngeen di wax police du wax mais 2017 yéen ñëpp gis ngeen am na ci ay mouvement yu doon wax ni que ñi ñu jàpp ay ay Baye la Café Touba lañ doon jaay am déet wala 2009 ci biir manifestation yi. Mm-hmm. buntu assemblée ay jaaykatu Café Touba ay Baye Fall ñu solu comme Baye ñu solu comme leneen mais police dafa mas am civil. et li ëpp ci police dig mës nga gis ku nekk ku gis ku nekk dig sol tenue est-ce que mës nga ko gis ah est-ce que mës nga ko gis est-ce que kon loolu lu bees la léegi pourquoi ñoom nanguwuñu ñuy discuter seeni procédure de sécurité yéen ngeen ni nanguwuñu ñuy discuter suñu procédure de sécurité lañu du sacrifice c'est-à-dire yow li ñu toog fii di wax yëpp yow dégluwoo li ma wax yow man ngay xool parce euh, que débat bi dafa dafa yaatu ah. non non man bi ma lay woo pour ñu waxtaan dama dama la kaa ñu waxtaan ci tolluwaayu réew mi bu fekkee man sama bopp mën nañ tëje loolu fi nga jéggee loolu mooy ci réseaux sociaux yeeg ay TikTok du foofu nga ko déggee ooy ooy dafa feebar ah, wa mais xaaral rek ma wax la wax nga ma danga may bàyyi ma tontu la pour ñu ñi ñuy déglu xam fi ñu jëm fan la gis nga yëf yi am na tolluwaay ku nekk day jël responsabilité ñu bàyyi wax pour wane suñu bopp bàyyi wax pour ñaawal diw bàyyi wax pour gàkkal diw mais ñuy wax rek ca njëriñu réew mi tax ñun ci li ñu dund suulaguñ sax suñuy néew am na ñu toog ñaari fan génnuñu seen kër ci ñoo xam ni dépense bés par bés lañ koy wut am na ñoo xam ni seen boutique seen investissement wu àddina yëpp naxasaay na am na ñoo xam ni seen këru liggéeyukaay naxasaay na am na ñoo xam ni buñ daan def euh, euh, vingt minutes pour jógee seen dëkk ak fa ñuy liggéey see léegi tey quatre heures de temps lañ dellu am na ci ñoo xam ni dañoo leboon jënd oto am na ci ñoo xam ni dañoo góor góorlu woon tabax seen i kër ñooñu ñëpp ñàkk ko yow nga toog ak man ñuy wax ci waxi réew mi nga naan moom est-ce que man año di man dañ maa teg nit a ma wóolu teg ma ci place ni ma lii mooy sa lii mooy sa rôle ma koy doxal xooluma ci sama njariñu bopp bu fekkee dangaa ngaa defe ne ni que am na ñu lay tiital ak ay ñuy wax loolu mën nañ ci ñëw ci sa waxtaan parce que ñi sabab lii ñi sabab lii lu ñu yàgg préparé la pour que yow ngay mën a xalaat comme loolu mais liñ fi wax fii nii yëpp amul ci lenn lu ci jëm ak sama personne man man xoolal ndax li may wax yaa ngi koy dund ak ndax méngoo ak li ngay gis ak ndax méngoo ak sénégalais yi man sama jëmm amu ci solo non xam nga li ma la wax dama ne la ñun ñëpp gis nañ ay nit yu nekk ci manifestants yi di tiire ci manifestants yi Seneweb xëy titré yow Seneweb nga nekk Seneweb xëy tiitre un gendarme abattu à Diamniadio par bal ci blessé yi am ñoo xam ni bal moo leen tiire manis ay sénégalais yoo xam ni yu nekkoon ci autoroute bi wala yu taxaw seen parentaire ñoo filme film boobu ngay wax ay sénégalais ñoo ko filme du police moo ko filmer léegi foofu nga jëlee film police bi ci réseaux sociaux yooyu noonu réseau sociaux yooyu noonu kañ ci fan yii yëpp yéen ñi ñëpp gis ngeen ko dañoo bindoon ni taal nañ sama kër yow xam nga sama kër xam nga ni taaluñu ko yow xam ci yéen ñi am na ñu xam fa ma dëkk te pourtant foofu noonu taf nañ fa vidéo wan nit gi wane benn nit buy gàdd doomam ñu ni noo Mame Mbaye taal nañ këram mi ngi nii di daw te ñun ñii ñëpp xam nañ ni du dëgg waa léegi est-ce que réew mi ak fi mu toll mën nañ comparer waxi police ak foofu nga xam ne li ci ëpp ci liy wax neew ma dëgg amu fa de mais li ci ëpp ci li ñuy wax du dëgg ci yéen ñii nii ki may xool xam na ma bi ma gi bi ko gisee daf ne ma man damaa foogoon ni kay da feebar ba yooyu ba dee dégg naa da biir xaw sa biir bi dafa ne mais c'est que il faut arrêter cest dire le métier que vous faites est noble et ñi leen di déglu dafa bari bu leen nangu ñuy jaar ci yéen bu leen nangu ñuy yàq xelu nit ñi réseau journaliste da am bac dem sesti wala nga dem ci école yi au minimum di nga def bac plus deux ñu jàngal la seen technique gu métier man xamuma ko yéen a ma ko gën a xam. donc réseaux sociaux yi mënta nekk source bu fiable. pour apporter réponse ci loolu. non xaaral xaaral non man laajuma la. non non sociaux mën na nekk parce que da wax ba tudd suñu corporation. déedéet réseaux sociaux mën na nekk source d'information. ban corporation laa tudd bu la woon ndegam loolu c'est véri c'est une vérité ou pas ce qui s'est passé avec la police c'est que le gars qui qui était à la communication dafa génne vidéo boo xam ne la vidéo elle il présente dans la vidéo une information qui n'est pas avérée à 100% puisque bu ñu continuer dans cette vidéo là on voit de manière nette et claire que ni ce gars-là est auprès de la police et il est présenté par par le gars de la police comme un comme un nervi. nous non. comprenons nous chez nous le nervi celui qui est de, du côté des, des gens du, pouvoir et qui euh, la, population. Donc s'il le présente comme un nervi, nous, nous allons prendre cette, cette conclusion-là. Et après, le fact-checking vient pour dire que ni, ça, c'est pas avéré. C'est ce qui s'est passé en Non, réalité. non, en fait, c'est que du fact-checking, du double-check, de recomposition, comme nous l'avons dit. li nga fàtte ci sa analyse ak ci sa sa démarche mooy est que policier bi toog di wax ak yow c'est pas quelqu'un qui a fait de la communication. mais mais déglu ma yow tamit ba nga xam ne ma la déglu n'est-ce pas kooku c'est pas un communicant nel benn. Mm. deux il a des procédures yu koy jox limite am na lu mën a wax am na lu mënta wax. Mm. trois dafa nekk ci procédure enquête. Mm. lépp lu mën a def ci biir communication ba tax ko mu mën a jàpp ñim jàppagul da koy def léegi bu fekkee ni ah, que. au mais mais. bi man mais est-ce que doo ma déglu. li gën mooy nga déglu. Mm. c'est que man ñëwuma tooguma ak yow pour dàggasante walla di wax. da ngay laaj man may tontu. Mm. donc déglul déglul man ñëwuma fii pour dàggasante wala pour wax ay affaires yooyu. da nga déglu. ki toog policier bi toog di wax c'est pas un communicant ay procédure am liggéeyam li ko tënk am na lu mu mën a wax. am na fu mu war a yam am na fu mu mënta wax moment ba muy wax mi ngi enquête mënuñu leen wax ni que am na ay combattants parce que c'est le mot il faut le dire c'est des combattants c'est des gens aguerris ñu gis ay nit yuy tirer arme ak qualification gis ay nit yuy tirer ay arme sans qualification loolu moo am moom jumtukaayam yépp doon teg ay pexe parce que loolu mooy liggéeyam pour mottali ñi mu jàpp parce que ci ñim jot a jàpp am na ñeen ñu ci waxal war a génn teg ay pexeem pour jàpp ñeneen ñi mais loolu moo waroon a nekk souci sénégalais yi pas di jéem a di nga toog sa kër yor sa site wala yor sa whatsapp di wax lu la neex defe ni ni que ki toog noonu kooku jàng ko sept ans comme yow ni nga jàngee journalisme di ko pratiquer bakkanam di ci tegu mu am njaboot comme yow ci réew mi di def liggéeyam yow jéemoo xool lu dul lu yàq xeluñu ñi nga di ko wax fii réew mi toll mm. la priorité c'est pas la politique fii réew mi toll la priorité du ay démocratie fii réew mi toll la priorité c'est pas des libertés fii réew mi toll la priorité mooy ñu dugg ci réew mi ñu génne leen comme que nee nga journaliste nga da ngay def investigation demal nga jël communiqué police yëpp nga xool ñi ñu arrêté ñëpp nga xool vidéo yi ngay wax nii yëpp nga xool am na ñoo xam ni police normal mooy dem jàppi leen am na ñoo xam ni BIP mooy dem jàppi leen am na ñoo xam ni GIGN mooy dem jàppi leen ku ci nekk bu ñu lay jàppi c'est en fonction d'état bi nga nekk ak niñ la représenter ak fa nga nekk il faut réfléchir dans ce sens parce que ak position boo mën a am ci réew mi nga dëkk ba ñuy teree ba ñu ñi tiitee di toog di génn sa kër nga toogoon bi ñu coupé internet bi liggéeyoo donc ñu ñëpp am njariñ ci réew bu ñu salfaañi réew mi ci ay non man maa xam man maa gis man maa bëgg a fekkee man maa def lii nii fii réew mi tollu dootul mambay du yow du président Macky Sall du keneen ñun ñii ñëpp jaar nañ université xaaral may mu ma eggale du ñu ñii ñëpp jaar nañ université ñu ci ëpp ci étudiant dina dem defi loolu image yi yeneen étudiants yi filmé ñooñu étudiant ay ñooñu ay étudiant lañ wala duñu ay étudiant ñu ñu jiite grève université mas nga gis dirigeant université bu ma a yor pistolet yor jaasi dem sotti ci toiture lakk taal étudiants ya ñëwoon di jaamaarloog ñoom mënuñu woon jaamaarloog ñoom parce que ñooñu duñu ay étudiants ñooñu xeex mooy seen liggéey. mais mais càggante bi mi ngi commencé ci ku dul étudiant mën a jël koo xam ni xamoo ko ca aadama ak awa ñu ni la yow kii fat ko. parce que suba dafa am lu mu war a def ci étudiant yi dafa war a am def lu mu war a def ci université bi yow mii étudiant bi boole woo ko yow mi den nag moom gis ni que kii nii li mu nekkee bokkul ci campus bi dëkku fi jàngewu fi nga gis ko romb ko soit resto wala nga romb ko ci ci ci toilette yi boole woo ko waaw mais waaw mais déedéet mais mais mais mais mais déglu càggante bi càggante bi bu fekkee càggante bi la victime yi tey ñoo njëkk a sàggan parce que parce que am na ay étudiants yu ñu dem fat ñeneen ñu dul étudiant ñu jóge ci beneen barab ñëw def ñaawteef université ñu ñi ñëpp on s'est battu pour des franchises universitaires non mm. voilà mm, tey jii nii est-ce que duñ ko xoolaat mm, tey jii nii est-ce que franchise universitaire waratul am parce que plus de cinquante mille soixante mille étudiants jàng nañ sept mois ba war a def ay 4 TD 5 TD war a def seen examen ñu tëj campus bi parce que ñëw nañ taal mémoire université bi ñëw nañ taal chapiteaux yi investissement ñëw nañ taal bus yi fa nekkoon te ñi ko def génn nañ dem nañ seen yoon loolu mooy responsabilité individuelle bi ñuy woo population bi mooy ki ci nekk fa nga dëkk koñ ba nga dëkk commune ba nga dëkk département ba nga dëkk boo fa gisee loo xam ni jàpp nga ni que méngoowul ak yoon ñooñu la police wax même bu fekkee ñemewu ñoo dem jàkkaarloog ñoom ñu woo leen ci numéro wax leen discrètement et alhamdulilahi rabil alamin mi ngi am parce que yéen seen bopp yéen a ngi filmé ay arrestation yu leen bett yéen ci seen bopp yéen a ngi gis ñuy jàpp ay nit yu leen bett yéen a ngi gis ñuy jàpp ay nit parce que dañ ci doon def seen xaalis di woo ay nit di leen fayloo. yow jàpp ngeen ni ak fii réew mi toll nga jël xaalis dem fay nit ni ko lakkal kër Mambay loolu délit d'opinion la voilà. est loolu lañ leen jàppee. Ah. yow est-ce que jàpp nañ la du yow sànq léegi nii de man a yow sax si bi ñu weete dama la man yow saa waay tu es acerbe da ngay kii rek nga ni ma non je équilibré et je suis est-ce que mas police mas na laa woo police woowu la te pourtant yaa ngi wax sa opinion yow police daf laa mës a yow police daf laa mës a yow police daf laa mës a mais jël sa téléphone te di noonu kaay leen génn nañ leen dem taal lii nañ leen dem taal lee nga ni loolu délit d'opinion loolu du délit d'opinion sëriñ bi wax non maa ngi ñëw ci yow sëriñ bi ngay wax ni ko dañ ko jàpp mais mënoo toog génne sa alal jox ay xale ni leen ca ce que nañ fi condition yoo xam ni dem na ba dootul sax yenn yi enquêtes yi buy am man am na ci benn bu ma marqué ku nekk Europe woo benn nit ni ko maa ngi lay yónnee 600 euros demal nga taalal ma kër diw ba ñu seetee diw moomu lan la séq dañoo amoon problème ñoo ñaar léegi kër kooku tàkk na bu enquête amul dañuy jàpp ni que manifestation la wala ay bandi ñoo ko ñëw taal fekk keneen moo yónnee 600 euros loolu am na et ci fan yu néew di ngeen gis police traité ko nga dëkk ak nit ngeen am problème nga woo say nit cas yooyu yëpp am na mais loolu lépp li tax mu mën a am mooy est que bunt yi ma leen wax moom la ñu ubbil la priorité du jàpp ma Samba du jàpp ma Demba la priorité mooy est que ñu fexe. jàppale suñu force de sécurité et de défense yi ba lii fi dugg ñu jàpp leen bu ñu leen jàppulit ñu fexe ba ñu génn ba ba ñu mën a def parce que tey loolu mooy priorité bi du liberté du démocratie du wax sa xalaat am réew nag mënuñoo dem egg fenn koo xam ni animé teg musique mooy sa liggéey loolu nga jàng wute na ak yow bëgg a ay situation sécuritaire am réew na tollu na foo xam ni ki nga xam ni mu Facebook am la yoroon wala beneen bi TikTok am la yoroon di jaay ay yére bëgg a wax ci sécurité bi bu ñu sàgganee réew mi bu ñu caaxaanee réew mi et bu fekkee liberté yi loolu la loolu mooy yàq réew mi et loolu lépp mi ngi jóge ci ay wax yoo xam ni teguwul fenn ñuy bàyyi muy dajaloo di dajaloo di dajaloo fii ñu toll nag jot na parce que baax ba faw la wala yàqu ab diir li ëpp solo mooy fii ñu toll nii gis nga ni que am na ay sénégalais yoo xam ni seen xel nekkul ci dara lu dul seen njëriñu bopp nee nañ ñoom jàpp nañ ni que dañuy woote ay manifestation nee nañ dañuy continuer rassemblement dañuy woote ay rassemblement ci jamono joo xam ni am na ñu yor ngànnaay dugg ci biir nit ñi ci jamono joo xam ni police ak gendarmerie ak militaires yi ak ñëpp seen kéemtalaay kàttan ñi ngi koy def pour topp ñooñu mënuñoo wax. un commissaire de police boo xam ni topp ay délinquant enquête nga bëgg li muy liggéey ak li muy wax mu ñëw teg ko ci réseaux sociaux yi mais kii enquête xanaa sax bu fekkee parce que ñiy def lii nii ay film la ñuy seetaan xanaa sax ñiy enquête yenn saa ñu wax dara loo xam ni pour mën a yombal ñi ñuy jàpp la mais ñi indi coow lii yëpp anamu koo ci invité doo ko gis ñoom ñëpp daw nañ xam nañ lu sax ñu daw. waaw mais après boo leen gisee nga laaj ko. non mais déedéet mais daw bi yéen yéen a ko xool vasi y madame oui. non buñ ci ñaaw buñ ci buñ ci ñaaw njort parce que ci diggante bi ci diggante bi lu bari am na ci nee naa la ay jumtukaay yu bari police gendarmerie. kuréel yi nga xam ne ñooy saytu loolu ñu ngi ciy liggéey mais nee naa la du ci barab bii laay toog di wax lal la police di def du ci barab bii laay toog di la wax lan la gendarmerie di def du ci barab bii laay toog di la wax nii lañ koy defee parce que loolu amul benn réew buñ koy waxtaane bu ñu jaar ci yéen bay nangu ñun suñu réew ñu fiy waxtaane loolu du benn parce tey nit kuñ jàpp am na lu ñu la jàppee tey nit kuñ téye am na lu ñu la téye tey jàpp nañ ñoo xam ni dëkkuñu ci réew mi jàpp nañ ñoo xam ni ñu ngi ci yeneen fichier wu àdduna bi xaw ma ndax li may wax comprendre ngeen ko jàpp nañ ay nit yoo xam ni fiché nañ leen ci yeneen dëkk mais nañ bàyyi police def liggéeyam mais bu fekkee ni que da ngay nangu ni que enquête dina jafe loolu ci mouvement de foule trois cent quatre cent personnes yuy dem benn nit toog ci biir génn pistolet dóor dugalaat kooku daanu këlëb wala ngay dawandoog nit jam ko paaka waa léegi moor bi nga xam ni ñoom dañoo génn ci Auchan bi di seddoo kooku dóor ko jaar si man ci yéen laa ko gisee xaw ma ban site la ci kooku enquête bi nan lay demee ki nga xam ni paaka ginnaaw lañ ko jam ki nga xam ni am na yeneen politiciens yoo xam ne dañu ñëw ni ko non yow waxal sa njaboot rek kii moo ko rey kii moo ko rey mu ni déedéet man sama sama doom lii reyu ko enquête yooyu yëpp lay leeral responsabilité ku ci nekk dinañ ko situer. mais ñooñu dañoo xamul et seen ñàkk xam moo tax sax ñu def lii ñu def nii. parce que bu ñu xamoon du ñu def réew mi fi du egg fii ñu egg xam nga kum neex nga toog seetaan sa Netflix wala seetaan say film après génn bëgg a wax un pays democratique comme le Sénégal muy am maintien de l'ordre suivant des procédures définies ngeen di gis ay xale di sànni ay xeer ay policiers ñuy reculer ba ñenn ñi ci néeg di jël xeer di sànni taxul policier bi génne dóor ca kooku yoroon na ngànnaay waaye que ces forces là sont républicaines course bi nag yëf yi bu raxee dañuy xam ni dafa rax mel na ñëpp nangu ni dafa rax mais ñooñu bu ñu fàtte ni que ñoom ñoo sumb affaire bi du ñoom kese nag mais ñoom ñoo am responsabilité devant Dieu et les Sénégalais et devant l'État du Sénégal créer ay conditions bañ mën a attaquer république bi ñooñu tey waruñoo wax parce que dañoo def li ñuy def ba pare daw lâchement après ñu bëgg ko rattraper ci ay communiqué naan non ñi ngi waxtaan ñi ngi def nii waxtaan amul waxtaan ku leen wax ni que waxtaan am na waxul dëgg fii benn waxtaan moo fi am mooy dialogue national leneen li ci des lépp ci yoon lay tegu enquête yi dina am ñi ñu war a topp dinañ leen topp jàpp bi mi ngi commencé ku yaakaar ni mën nga def lu sut loolu yaa ngi nax sa bopp mais encore une fois na sénégalais yëpp jël seeni responsabilité ku gis lu normalul sa biir koñ nga woote numéro police yi du ay nax du ay film du ay leneen ay nit a ci dee ñi leen rey ci biir seen biir la ñu raxoon ñooñu tey buñ bëggee réew mi dal ñooñu la ñu war a seppi après bu ñuy wax bu ñuy xuloowaat suñu biir bu ñuy manifesté ku nekk dem gàddu say pànkaar ñu dellu ci loolu mais mënuñu toll fii ñu tollu nii yenn nit yi defe ne ni que pour wone seen bopp wala pour fësal seen bopp ñëpp am nañ sañ-sañu bëgg réew mi ñëpp am nañ sañ-sañu jiite réew mi mais dafa laaj xam-xam ak dal ak jaar-jaar et problème yii ñu am nii yëpp li ñu ko teg mooy ñu xamul rek ñoo nekk di wax parce que bu ñu demee ñun ba ñu nangu ay animateurs di discuter suñuy procédure de sécurité mu ek problème am na bu ñu demee ba nangu koo xam ni yow jaay ay robe jaay leneen mooy sa métier ngay discuter suñuy procédure de sécurité mooy problème am na bu ñu demee ba jàngul di expliquer ay procédure de droit mooy ek problème am na. ñoo xamante ne ñi nga wax ni ñëpp xamuñu. ñi ma lay mooy ñan jox ma benn exemple waaw waaw waaw ñoom nee nañ am yëpp ci moo bëgg a liquider benn opposant mm-hmm. mm-hmm. parce que ñun lépp nee nañ ci kaw en tout cas du ma remettre en cause seeni capacité intellectuelle mais li leer ba leer mooy dañoo far li leer ba leer mooy waxuñu dëgg li leer ba leer mooy liquider wuñu opposant li leer ba leer mooy ñoom dañoo gis dëgg bañ koo gis bu dee dañoo defe ni que pour liquider suñu adversaire la procès bi liquider kenn procès bi ñaari nit yu tooñ la parce que ki ñuy wax ni que dañ koo liquider bu fekkee liquidation politique ñaari weer ñetti weer ci ginnaaw ci sama diggante ak moom résultat bu ko génne woon ci ay élection am na et délit ñu ko crime bii ñu ko toppee defu ko tey defu ko démb yàgg cela deux ans la ko def donc ñooñu nga lim bëgguñu réew mi yeneen wax la ñuy wax. non mais mais mais àdduna àdduna fi fi tas ci àdduna bi yëpp ay borom xam-xam yu ay borom xam-xam yu yu bëggul dëgg ñoo ko tas. ci ci ci léegi monsieur monsieur le ministre. Hitler ñi mu àndaloon amuñu xam-xam wala. ñu dem ba bind théorie. Mm. am de man ngaa am xam-xam ñooñu la yàlla wax ñi ñoo gën a bon. mooy ñiy xam. Mm-hmm. te di def leneen. parce que boroom xam-xam comme ni nga ko waxee du toog topp toog ak nit mu jël centre de beauté ak de massage ni la dama fay dem faju ji boroom xam-xam di nangu loolu te képp kuy sénégale ku dëggu xam nga ni ko wax jooju amul boroom xam-xam du topp ku mel noonu ku dëggu du topp ku mel noonu ku bëgg réew mi du topp ku mel noonu ku bëgg Sénégal dal du topp ku mel noonu donc am na xam-xam weddilu ma ko ko mais dafa far dafa jéng te bëggul réew mi ñooñu ñooy ennemi Sénégal. Euh, monsieur bi bëggoon bëggoon nañoo euh, si sa diggante ki nga xamante di Ousmane di que parce que gis nañ nga defoon nga ni da bëggoon a saisir ay ñu bëggoon a xam tey jii fan nga toll si wàllu justice yaa ngi foofu wala da nga am non xam nga waajooju on a la page ce n'est plus d'actualité du koo xam ni maintenant bokk ci politique du koo xam ni mënati naa wax ci réew mi parce que tourné nañ page boobu page bii ñu nekk nee naa la kaaraange réew mi booloowaat réew mi ak tegaat réew mi ci yoonu liggéey loolu mooy priorité kooku weesu nañ ko. Euh, waa moo tax ma ne la loolu weesu nañ ko la ma ca waxoon moom laa ciy continuer di wax. amu ci dara lu ma ciy laam-laamee amu ci dara lu ma ciy wàññi lu dul yërmande xëy na mën nañ dem ba ci biir mu am ci yërmande diggante jullit ak jullit loolu moom ni ma mës a écarté loolu parce que jullit àqan la mais tey kooku weesu nañ ko ci li ñu ne mooy xool ci biir jaloog national bii nii nan la ñuy waxee ba li yàqu ci réew mi mën a baaxaat nan la ñuy fexe ba conclusion yi muy génne mën a boolewaat réew mi mën a tegaat réew mi ci yoonu siraatal mustaqim mën a fexe ba dëgg saxaat ci réew mi ba ku nekk jot sa àq ak yelleef mais ñu teg ko ci dëgg ak ci njub loolu mooy priorité man li ma jàpp mooy est que réew mi dafa am tolluwaay li ñuy jéem li ñu war a def mooy na population bi képp kuy sénégalais ñu topp ci ginnaaw force de sécurité et de défense yi ñu génn li fi nekk ba pare ci diggante bi njiitu réew mi nee na avant yëf yi di am ubbi nañ dialogue national am na commission yëpp am na commission politique am na commission transport am na commission finance bépp sénégalais bu am xalaat damal nga wax ko foofu fii ak ñaari semaine dañuy tënk mais li ëpp solo mooy ñu lijjanti lii nii ak suñ force de sécurité et de défense yi li ëpp solo mooy sénégalais bu am xalaat jarul nga koy wax ci mbedd mi pour taal mbedd mi demal ci commission yi boo amee foofar demal ca dialogue ba nee na amul sujet bu ñuy nëbbatu waaye dialogue fenn tooguñu ak kenn ku bëgg a wax ci waxu réew mi ci jaloog boobu ngay dem. report déggoo li ma la wax man tollu ma ci oui ou non report ou man sama suusi mooy ñëw lii dugg ci réew mi ñu génne ko fi xam nga ku nekk ak sa problème parce que bu fekkee ni que da nga jàpp ni que li ma wax nii taal nañ. BRT bi wala. c'est attaqué nañ usine ndox bi wala. c'est attaqué nañ senelek wala. c'est factuel. attaqué nañ ñu attaque cyber wala. c'est factuel avant ay deux jours avant deux jours avant rek. am réew boo fa nekkee mënoo am lumière mënoo am ndox boo naan mënoo transporter wu commerce yi ñu koy toj. li may wax nii am na wala amul. waaw ku la ku la ku la joxul añ bu la diggee reer ndem sa xel war naa mën a dal. waaw déedéet mani suñ état bi xoolee bañ dal si kawam noonu. ndegam bu ñu waxee nii dina dina ko régler. war nañ koo gëm déedéet mais mais dina ko régler parce que téye na ko. parce que ñooñu ba ñuy jóg def ko ñaari fan rek taxul woon. est-ce que ba ñuy attaqué Senelec bi tax na courant coupé est-ce que ba ñuy attaqué ndox mi tax na ndox bi coupé est-ce que te ba ñuy taal BRT bi ak taal infrastructure est-ce que tey dem ak dikk bi gënul yomb parce que am na ay sénégalais yu conscient parce que am na ay sénégalais yoo xam ne ci dal gi ñu dund moom la ñuy dund léegi munoo jàpp ni que juróomi song yooyu ñu songuñu ko nga jafe ni que réew mi normal na. réew mi normalul de ku xalaat ni que réew mi normal na. yaa ngi ci inconscience boo xam ni tu mets ton peuple ta nation et ta république en danger. mais c'est un vaste complot contre l'État du Sénégal c'est un vaste complot contre l'État du Sénégal. mu complot weesuwul. ñu ñuy taal say lumière ñuy taal sa Senelec taal sa SDE taal sa méthode de transport attaqué la attaque cyber attaqué say commerce attaqué say banque mais loolu ku ñu song sa koom-koom kay song nañ la kuñ song sa xol mooy dañ laa bëgg a rey léegi ay jumtukaay ak taxawaayu sénégalais yi ñoo tax loolu amul mais nit ñi dañuy def comme si dara xewul ku nekk continuer toog taal sa laaj di wax c'est du terrorisme et jàppale loolu c'est fair l'apologie du terrorisme c'est ça le vrai mot appeler inciter les gens à sortir c'est faire l'apologie des casses c'est puni yoon da koy tere toog sa kër uuf sa ñaari jabar toog génn génne deux cent mille trois cent mille woo boy ci koñ mi waa mais boy yéen ñi ngi tàkk yéen taalu leen dem leen taal nga def ko bëgg toog sa kër téye sa life naan da ngay jéem a jaay yow xamoo dara ci li ñuy wax mosoo téye réew mosoo téye service xamoo nan lay doxee xamoo ci dara yàlla xam na ni xamoo ci dara du ci jaar-jaar du ci njàng ngay taxaw di saaga naan non lii diw lii diw après nga bëgg a toog sa kër mais loolu mënta continuer ne non non waxuma la ni que la nation est en danger dama ni la l'état du Sénégal la nation sénégalaise est attaquée ma wax la loo xam ni yow yaa ko yow bokk nga ci ñu ko reporté sénégalais yi xam nga xam xam nga ni toogul këram tëdd di nelaw rek yi fi taxaw déedéet fi mu nekk nii seetatuñu lu rafet nekkuñu ci ut lu rafet ci génn ci situation bi lañ nekk réew mi doxewul noo xam ni lépp lu nit di def dañ koy def ci réseaux sociaux yi réew mi doxewul noo xam ni lépp lu ñu ñuy wax dañ koy wax ci réseaux sociaux yi wala dañ koy wax ci presse bi y a de ces décisions de ces choix les gens le font dangay ngay xëy da ngay xëy gis police jógee euh, wakaam jubali ngor est-ce que dañuy wax ci rajo bi ni que gendarmerie jóge na wakaam mi ngi dem police mais ko ko koy wax dafa ko wax fa mu war a waxee. mais pour apaiser. li pour apaiser. wax na ni que dinañ jël matukaay yëpp matukaay yi buñ ko jëlul woon yëf romb na lii matukaay yi buñ ko jëlul woon duñ toog fii di wax matukaay yi buñ ko jëlul woon boutique yi du ubbiwaat matukaay yi buñ ko jëlul woon euh, internet bi du doxaat matukaay yi buñ ko jëlul woon euh, transport bi day arrêté matukaay yi buñ ko jëlul woon tey kenn du jógi dem faju ji matukaay yi buñ ko jëlul woon tey doo am courant booy diffuser lii ngay filmer matukaay yi bu ñu ko jëlul woon suba doo naan ndox doo sangu parce que ay matukaay lañ jël pour que loolu bañ a am te ñu ñëpp ñu doon seede ni que loolu lépp am na ay nit yu jóg pour fexe woon mu bañ a amati léegi doxalin bi mi ngi dox gouvernement bi mi ngi liggéey moom nee na ci conseil des ministres man bi ma fekkee ñu ñëpp ñu liir ko et noonu la noonu la président di wax askanam nee na jox na rendez-vous ñi peuple sénégalais dina leen expliquer wax leen mbébét yi ak liñ fi jaar ak liñ fi def mais ci diggante boobu noonu am nay enquêtes yu am am na ñuy faju am na lu ñuy réparer am na lu ñuy remettre en marche bu fan yooyu ci diir la wax ci lu yàggul dina toog wax ak ñoom mais dina wax ak ñoom mais li ëpp solo li ëpp solo ci moom ci cëram mooy mu fexe ba réew mi delluwaat ci kaaraange ci alhamdulilah mi ngi delluwaat mais mën naa gën a gaaw mën naa gën a bar mën naa gën a efficace bu ci sénégalais yi jàppee ñooñu duñ société civile kooku nee naa la yow tamit kooku weesu nañ ay wax yu waajooju jàll waaw mais déedéet ban ban jàmm jàmm dina am du jàmm mi ngi nii am na te ñu ànd ak moom bugguñu ko jàmm mi ngi nii am na ci ñi ànd ak ñi ko doon jàppale ñoo ko sabab jàmm amul kooku nee naa la weesu nañ ko. ñi ngi ci leneen président du toog kenn ku bëgg a waxtaan ku am looy wax te bokk ci moom na dem ci dialogue bi mu wax ko. kon mu wuti woon Touba moom Macky Sall. waaw boo gisee nga laaj ko ko. monsieur le ministre gisee nga laaj ko ko tënk nañ ci ay conclusion waaw ku ci tënk tënk nga ci loo xamul. Hmm. ku ci wax. Hmm. yaa ngi wax loo xamul. Hmm. du nee naa la tënk conclu ñi tënk conclusion yooyu noonu. ñoo la waxoon ne que man man dee naa et que ki ba kii ñëw naan ma est-ce que du yaay nagu sarax bi loolu bul toggati ak ku mel ni man di ko wax dégg am na waxi mbedd yoo xam ni boo toogeeg nit koo xam ni dafa ñëw bëgg di wax pour nga xam doo ko wax. non gis nga yi ngay wax nii yëpp ay xalaat la ak ay tolluwaay bu dee pour rendre hommage ñi ñu am defe naa rendre na leen hommage et boor bu ñu mën ci féete ñaanal na leen arrêté nañ conseil des minutes bi def une minute de silence mais ñun nation lañ yor 17 million de personnes ñoo fiy dund di xëy war a utul luñ war a am lu ñu lekk di xëy war a taal courant di xëy war a dox ci loolu redémarrer loolu lañ nekk. yow yaay xalaat sa xalaat la rek mais fii ñu toll nii du loolu mooy priorité du danga ma laaj lan mooy priorité priorité mooy ñiy jot a dugg ci réew ñu dimbali police ne sénégalais yëpp ak boor boo mënti fekk ak boor boo mënti féete boo gisee lu normal wóol police nga wax ko loolu mooy priorité bi